voilà coach rek dañu démarrer li nga xamante moo di waxtaan bi mais fi ñu koy dooree mooy euh, diggante kii di Tafa Gueye numéro ak Madji Madji li nga xamante moo di Madji Madji parce que bëri na plus de six combats yëpp dafa enchaîné li nga ay défaites mais boo xoolee tey ñaar ñoom ñaar bu ñu taxawee da ngaa fi euh, lii du combat mais gis nañ fu mujjee mooy ki nga xamante moo di l'ancien di Tafa Gueye numéro 2 feex na ba nax ki nga xamante moo di Madji Madji daan ko lan est-ce que jàppoon ni y a quelque chose ci diggante maanaam ci li nga xamante moo moo dal kii di Madji Madji waaw il faut que ñu wax reculer pour pour mieux sauter la war a def wala mu toog def benn aveu ne baal naa ñëpp àq na mu ñëpp baal. Mhm. xamul ku ko tooñee ku ko tooñul parce que loolu day am ci àdduna ah. mhm. day moo xam ne day metti trop mais il nga ànd ak gëm il nga am la fois mu ngi am ay nattu mu ngi metti boobu ba léegi làmb ji bi mu ci nekkee ba léegi mu ngi metti ci moom. Mhm. ñu koy ñaanal yàlla yàlla teggil ko ko. xale la am na yoon. mais ku mel ni Tapha Gueye numéro 2 ñëpp xam nañ ne day nax booy te loolu yàgg na mëninam nekkul cuuna ci làmb mbur waane la nekk na champion d'Afrique yàgg na écurie am na tàkkusaan bu nekk te ñëpp xam nañ technicité ak ténacité am ci bëri. Mhm. ñi mu mujj daan ñëpp daf leen nax. Mhm. daan leen donc ñu bari chute bi bettu leen. Mhm. mais ñu bari amoon nañ yërmande ci. ci Madji pour mu am victoire. parce mm. que métti na ko parce que la dernier dernier combat bi nga xamante ne am na ko dafa waxoon ne day bàyyi mais ñi nga xamante ñoo ay àndandoom ay proche am ñoo ñu waxtaan ak moom ne que lii sport la da ngay uti parfois yàlla mooy may ndam yàlla tey takkaatal jaaj yi nga ñëwaat. est-ce que tamit jarul boo xamee tamit moom soxnaam dafa am tur soxnaam mooy ndéggee dafa am tur saa bu ko daanee dañ xam am na am na ñoo xamante ne des mauvaises langues ñu ñu ñu ñu ñu ko dëkkalee est-ce que jotul tamit. maanaam peut-être xaw moom moo xam li nekk ci xelam quoi mu bàyyi làmb dem nekkaat ci leneen parce que vraiment métti na trop. waaw bu dee dafa am leneen lu mu mën mën na ko def wala mu bu fekkee dafa mën a dem à l'immigré mu def ko dem immigré ji mais yàlla mën na ko dimbali aussi bu continuer ni bés déclic am. Mhm. combat bi tey combat déclic la waroon nekk. Ah, vraiment parce que bu daanoon Tapha Gueye numéro dina dina dina sauter yeneen étape parce que ku daan Tapha Gueye kenn dootu la bañ donte am nga ay défaite mais il faut que moom mu def benn autocritique ci moom. xalaataat toogaat xoolaat ñaanlu ji je ne def gàddaay wala mu tuub wala je ne xaw ma xaw ma lu mu def lu mu deful mais metti na bu doon man la dinaa jéem a def benn nu ñu koy wax euh, retraite spirituelle. wala mhm. retraite euh, ci benn côté làqatu fenn. Mhm. wala wala defaraat sama yaram ñaan lu jiwaat saraxee parce que mu ngi koy def. mais mënu la wax moom su boobu mënu la wax lan la. ah vraiment lenn rek moo koy dimbali. Mhm. mu am la foi. waa ngëm waaw parce que nit sëy naag nit couple am na ñu dund dix ans amuñ doom douzième année wala onzième année ñu am doom année stop yëpp ñu am ay doom di dem yàlla mën na ko dimbali mhm. mu xëy teg la ay victoire ba xëy nekk lu am tour bu mag ci làmb bu liggéey mhm. boole ko entraînement ak sérieux rek mhm. yàlla mën na ko dimbali